association bi actuellement ni ñuy def ba mën a jàppale malade ñu ngi remuer ciel et terre avec nos maigres moyens malade yi ci boppam la ñuy ñooy entre ñun commençant ci ñun ñi nga xam ne ni ñoo nekk ñoo représenté bureau bi ba ci malade membre bi gën a tuuti ku ci dugg si daal moyennant une somme modique de sept mille francs lañ leen di demander te day delluwaat ci ñoom. mooy euh, problème mu d'abord finance finance bu sax. donc loolu suñ amoon ku ñu teggil charge yooyu charge yu am médicament charge yu euh, fay euh, sunu nu mu tuddati local bi nga xam ne mooy siège bi ah vraiment buñ ko amoon moo xam ne lu nekk luy sax dàkk.